n'a plus de quoi plastronner dañu rus dañu am kers on a mal et des gens comme moi ont des difficultés à trouver les mots qu'il faut pour caractériser cette situation je fais partie de ceux qui ont rêvé ceux qui se sont illusionnés que lépp mën na fi am ba mu toucha à l'élection présidentielle dans ce pays mais c'est énorme c'est même monstrueux dafa naa woon lépp mën na am ba mu def bi c'était le dernier rempart c'était le dernier modèle bi doon chanter ce qui est plus difficilement acceptable c'est qu'on ne nous donne même pas des raisons valides pour wax ñu lu tax ñuy reporter élection yi je ne parle même pas des moyens juridiques qui sont utilisés dama am métit bu bëree bëri bëri comme sénégalais comme militant et comme démocrate moo tax que ñun ñëpp qu'on se révolte est tout à fait normal que ñun ñëpp qu'on dénonce ce qui se passe est tout à fait normal parce que nag lii guléet la fi waru fi ne mënu woon war ne qu'on reporte une élection présidentielle surtout sans qu'on ne nous le dise on ne fait pas référence à mais c'est une application ou en tout cas une tentative d'application de 42 de l'article 42 parce qu'il s'agit, selon les raisons évoquées ou avancées, des difficultés entre deux institutions de l'État. C'est ça qui est gênant. C'est ça qui est inacceptable. ma wax ne suñ ne assemblée dafa ni am ci lu mu ne assemblée la muy dox am na ci droit loolu kenn werante wu ko qu'il y ait des problèmes et que les députés s'en saisissent c'est normal c'est compréhensible que les députés prennent des initiatives c'est normal c'est compréhensible qu'il y ait eu cette commission d'enquête parce qu'il y aurait quelques soupçons de corruption c'est normal comme c'est tout à fait normal que même des députés prennent des initiatives loolu kenn du ko werante kenn du ko xuloo parce que c'est la loi dama ni que des députés d'un groupe puissent prendre l'initiative de proposer une proposition de loi c'est normal li normalul mooy que président de la république di prox ndollu ci lo ci loolu pour di reporter élection parce que li ñu teg conseil constitutionnel dëkk bi quand même dafa am yoon dafa am yoon conseil constitutionnel su amee problème en son sein et les magistrats l'ont rappelé il existe des dispositions yoo xam ne ci la ñuy aw pour régler problème yooyu le vrai problème heureusement qu'on n'a pas évoqué de de cinquante-deux il n'y a pas de crise institutionnelle au Sénégal Pour l'instant, il n'y a pas de querelle entre deux institutions. Chacune des deux institutions, Conseil constitutionnel comme Assemblée, est dans son rôle jusqu'à présent. Le Conseil a pris les mesures qu'il fallait en matière électorale pour prendre ses décisions et l'Assemblée, comme structure législative de contrôle de l'action dans l'État et de l'État, que l'Assemblée prenne des initiatives, c'est normal. où est le problème, où est la difficulté, où est le prétexte à un report des élections. L'Assemblée avait décidé de créer une commission d'enquête parlementaire. C'est tout à fait normal. Mais créer une commission d'enquête parlementaire n'a rien à voir à, avec un report d'une élection. La preuve, ils l'ont tellement compris que pour def seen euh, projet de loi report bi xaaruñu commission d'enquête bi jeex lu tax xaaruñu ko c'est ça la question que les Sénégalais doivent se poser puisque dañ ne dafa am soupçon pour que puisque dañ ni am na guerre mais nañu xaar boobu ba commission bi taxaw ba commencé liggéey su fekkee gis na lu tax ñu ne lii am na boobaa ñëpp ni gongo mais commission bi doo dooragul sax dooragul sax on préjuge de ses conclusions et on, on, veut reporter les élections. Voilà le problème. Ce qui, est, ce qui se passe ici est un précédent dangereux. Ben démocrate Warukonango. Ben démocrate Monokonango. Je l'avais déjà dit. Je le répète. Le vote des députés de Tahaou a servi de prétexte à certains pour dire que notre coalition était complice de ce qui se passe mani bu paaka nit ñi di boole wala di bokkal wala di wax lu àndul la commission d'enquête est une action continue une initiative parlementaire boo xam ne fépp fuñ ne wuruj am na fa am nañ droit bokk ci donc nos députés ont eu raison de voter la mise en place de cette commission d'enquête parlementaire. Mais nos députés ont pris la précaution de dire que ñoom ils sont contre le report des élections. Moi-même, je l'ai crié fort, je l'ai réaffirmé et j'ai dit que nous étions contre le report des élections. sama waxu sama waxu tey nous nous donnerons les moyens de nous combattre cette décision. le président a pris un décret pour rapporter, pour abroger celui convoquant le corps électoral mais comme que gisaguñu décret bi gisaguñ ko te moom waxuñu yan base la ko wékk ñoo ngi xaar mais dès que le décret sera publié il sera attaqué incha parce que am na lu kenn dul nangu lenn loolu kenn mënu ko seetaan kenn mënu ci ànd c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal qu'on reporte une élection présidentielle ban crise moo ko fi jar ban difficulté moo ko justifié ban raison valide moo tax ñu mën ko nangu je n'en vois aucun je n'en vois aucune donc li ñu bëgg wax fii mooy Sénégal yëpp moo war jóg que toutes les forces politiques démocratiques toutes les forces de la société civile devraient s'unir pour que lii bañ antu à la veille de la du début d'une campagne électorale qu'on puisse arrêter un processus de cette nature est inacceptable ñun ànduñu ci ñun d'accorduñ ci ñun bokkuñu ci dama bëgg mu leer nañ bokkuñu ci ànduñu ci d'accorduñu ci ci nii mbaa ca nee amul ci ruq amul ci waxtaan amul ci gise fenn du man du keneen et je veux que ça soit clair et que tout le monde sache que dans cette affaire lépp leer nañ ànduñu ci bokkuñu ci boolewuñ ñu ci d'accorduñ ci mais li ëpp solo sax mooy conséquence su yi parce que moi ce qui me gêne dans l'annonce du président seetlu leen ko kañ la élection yi kañ la élection yi xam nga wax ji nit ñi suñu suñu dégluwul amuñu dégg-dégg dañ ñu ngi ñuy diri ci fu ñu jëmul fu ñu xamul kañ la élection yi ñaata la lii de durée